ملكي لا i ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على النبي الكريم ñu yëkkat ci kàddu yu nuyoo di ko teg ci loxol suñu baay sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Seck xalif général de Thiénaba mu wàcce ci mbooleem mu xaddam taalube gan yu officiel ak gan yu yi nga xam li ñoo ñëw euh, ñu jéem a tënk rek lenn ci li ñu gëstu woon ndax xataayu waxtu yi mooy bi ñu nga tudd léegi ci yonente bi talam ci société exemple muy itam cadre boo xam ni mënees na ci jógee suutam yu bari moo tax ñu tànn génn ci suutam bu tënku ci bennoo ak jàmmoo ndax bu sopp yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa mu wér faw bi delloo la ci valeur yooyu bennoo jàmmoo leçon yi ci islam jàngale ni ko cana ba ci wàllu jàngale dafa am lu ñu naan système pédagogique maanaam xeeti jàngale yu ànd lëkkaloo kàddu leçon ak exemple kàddu yëg-yëg lay viser lay diir leçon xel lay waxal li ko tax mooy yokk dégg-dégg ba mën a entraîner jëmm ci boppam pédagogie bi gën a boo ko dee seet ci alxuraan képp nga koy fekk am na borom xam-xam bu wax ni alxuraan téere la boo xam ni baat bu ne dafa làmboo ñett leer loi ak kumpa mu na kumpaam yoonam nekku ca waaye dina jéem a analyser leer ak loi mu mel ni kon leer gi day dellu ci kàddu ak yëg-yëg di lu yomb a ndax alxuraan mooy texte boo xam ni doonte xamul la ñuy firi teewlu baat bi képp day yóbbu doomu aadama ci xaal baat bu ne waala buy digle wala tere te mooy leçon buy jàngale bi mu juddoo ba du muy faatu lépp jullit dafa tënku ci loi ak règlement jullit bi war leen a xam loolu moo tax yëg-yëg bi kàddu di def ci jullit lu baax la waaye doyul dafa war a farlu jàng ba xam ñaareelu dimension alxuraan mu di loi ak règlement yi gàllu ci loosam en tant waaye ngir ñu am efficacité te mooy am jeexital ci julli bi maanaam impact social bi bi di wax jàng loi ak leçon dafa war ànd ak misaal yu leen di jëmal les exemples qui entraînent ci loolu ngay déggee ni Isa baree ci alquran su ko sooboon yàlla day wàcce téere boo xam ni day yor melow code maanaam yam ci digle tere fay daan waaye dafa indi pédagogie bu sukkandiku ci misaal les exemples qui entraînent te soo xoolee da ngay gis ni dafa am une dimension réglementaire cachée maanaam Isa boo jël gees ca wala dégg digle wala tere pédagogue bu mag ba oustaz Alioune Guèye yal yàlla yokk yërmandeem misaal xissa ci loosu doomu aadama mu wax ni ñaari xeetu xissa ñoo am ci histoire xissa bi lay geesuloo ci sa càmmoñ joxoñ la ñaaw def yoo war a moytu ak xissa bi lay geesuloo ci ni joor joxoñ la jikko ak taxawaay yu rafet suñu wàccee doxalin woowu xeetu njàngal moomu ci thème bi nag bennoo jàmmoo nosooyu islam exemple Thiénaba alquran ak hadis dañoo fees dell ak nosoo yi jàngale jëm ci ñu taxaw rek ci benn ci nosoo jullite yooyu ñëpp xam ko waxtasimu bi xaqillahi jamian wala tafarraqu mooy leen ci buumu yàlla gi te bu leen xaajaloo buum bu jógee ca yàlla def lu sell su ci nit ñi jàppee ànd ak yéene ju sell bennoo mooy tey daal di topp sell nag mooy jàpp ci buum gi te bañ koo teg ci parparloo ndax waxuñu bennoo bu yem ci famille wala ci waaso ci tariixa wala ci raas waaye bennoo yu islaam yooyu aju ci gis ni jamonoy bennoo xel ak xam-xam waaye jamonoy siraax day nekk toujours jamonoy fitna ak décadence culturelle maanaam jamono joo xam ni xam-xam day des loolu ginnaaw pour jël benn exemple loolu moo dal Makka ak Xureys Xureys dafa ràññiku loolu ci xeetu arab yàlla tànn leen génn ci ñoom ngëm ji bindeef ñu àtte islam fu yaatu diir bu yàgg ginnaaw coobare yàlla bokk na ci li ko sabab bennoo boo xam ni seen maam Xusay le rassembleur moo leen ko fàgguloon waaye yàlla nattu leen Muhammad sallallahu alayhi ci ñoom te nangu wuñu nangu message bi mu indi firaax ak fitna dugg si lu bari rëcc leen ci diggante Badar ak fàttu ndax ñàkk nañu notable yu bari commerce ba téyewoon réew na sax boo xuusee ci taarixu islam lu ni mel ngay seetlu jamono yi ràññi ko ci jamono jamonoy bennoo ak jàmmoo mbégin ci dundu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xilaafa aboubacar oumar ousmane oumar ibn abdul aziz ak ñeneen safaan bi nag mooy firaax ci islam toujours jamonoy néew doole lay doon boo tuddee jamonoy firaax xel dem ci fitnatul kubra waaye du ngën naam jamonoy tasaaroo la wuute loolu ak firaax bi islam di dund tey li leen wuutale nag li ci ëpp solo mooy ñi yaral boppam dañoo amoon capacité yedd seen bopp gaaw ci corriger seen i njuumte ñoom ñi sàkkoon fitnatul kubra dañoo teel a fàttaliku ni yonente waxoon na leen ni ginnaawam pas-pasi diine dinañu par benn bi ci dëgg fittiku nag mooy pas-pasu pouvoir ñu loolu yéen bopp seetaat ni ñuy saytoo pouvoir ba dootu leen féewale itam ni yonent waxoon na leen ni bennoo bu tee am waaye mu jàngal leen ni bennoo suñu ko jëmbatee suuxat ko structure sociale lii am léeg-léeg conjoncture la boo xam ni du am jeexital ci bennoo ga yemu ca mu jàngale li war a doon taxawaayu julli ba réeroo du nasaxal bennoo taxawaay bi jëkk mooy gàttalu conflit ndax dafa jàngale moom yonent sallallahu alayhi wa sallam ni aw ay dañ koy gàttalu ni dawle wala fii doo buy juddu bala moo am doole mu jàngale itam dolli ca une maxime de réconciliation maanaam bu conflit xasee am gis-gis ak taxawaay ba sotti ndox mu sedd mu ñu bu amee ëpp doole na jëkk seet ci jéego gindi ko acteur yi gën a ràññiku ci fitnatul kubra fàttaliku jëfe boobu naam Talha ak Zubayr ñoom fekke wuñu waaye xam ngeen ne Alioune Abou Talib Muawiya ak sunu yaay Aïcha la ñu doxale ba dépassé fitnatul kubra islam wéel ay jéegoom ba yegg fi mu toll ginnaaw kon fitnatul kubra du exemple bi gën pour ni xeex ak conflit day néewal doole diine ci conclure ni fitnatul kubra du exemple bi gën pour ni xeex ak conflit di néewale doole diine exemple bi dëgg kay mooy fi diine toll tey li mu julli mësula toll fi mu yegg tey un téeméer boo jël ñaar fukki ak juróom ay jullit lañu fii ak fanweeri at maanaam bu ñu yeggee deux mooy doon diine ji ëpp mbooloo ci àdduna julli di mësuñoo dajale ci seeni loxo alal ñu bare nii li ëpp ci pétrole ak xeeti gànjar ci jullit yi la nekk loolu lépp nag terewul tey la ñu mën doole ci wet bëre islaam waroon am doole yu dégg kàddoom ci orientation yu réew yu mag yi nam ma imposé bi lu mel ni taafentaloo yemmoo diggante góor ak jigéen politique de genre te fekk lañu nar mooy légaliser ak caay jullit ñi amuñu benn droit ci diplomatie internationale li nga xam ni tey dafa cautionné maanaam dafa d'accord ci nooteel yoo xam ni dañoo tege ci réewi jullit yi lu mel ni la xew Palestine Birmanie ca Rohingya ak feneen kenn déggul kàddu islam ci changement climatique ak planète bi ñuy saax-saaxe te alxuraan di téere bi gën a santaane ñu aar environnement amul menn réewu jullit mu bokk ci conquête de l'espace maanaam ñiy dem ak dikk ci jaww ji te alxuraan dënd bu yàgg xam-xam di koy taxaman lu mel ni Big Bang ak expansion de l'univers bi ñu sosee prix Nobel Yaa Saar borom xam-xam yi ràññiku ci 1901 ak léegi ñaari jullit képp ñoo ko mos a jël di doomu Pakistan Abdou Salam prix Nobel de physique ci 1979 ak doomu Égypte Abdah Zawayi prix Nobel de chimie ci 1999. muy nag lu jafee nangu ci diine joo xam ni inventé algèbre imprimerie médecine. Menyi ibn Sina, docteur Mahmoud ibn Khaldun, Jabir ibn Hayyan ibn Abbas ak ñeneen li ëpp ci li waral boobu tardé ci xam-xam ak ñàkk a am baat ci doxalin adduna bi mooy discorde maanaam tasaaroo bu métti bi jullit yi tasaaroo. misaal yooyu ñu génne ci taarixu islam manees na tibb yu ni mel ci taarixu diine fii ci réew mi bokk na ci baaxu doomu aadama. taxoo ak environnement bi ko meññ mu miin ko moo tax doonte nit ki jàng na ba xam leçon yu islam ak xissa yi leen misaal mu tukkee ci environnement bi mu miin day yombal ak dégg loolu moo tax exemple yi jëmbal bennoo manas na leen a itam ci taarixu kër gi boo jëlee exemple Cheikhu Ahmad dajale ak benn julli mosula denc itam soo delloo ba dafa am xew-xew yu ñu mën a jàngat ci fànn yu bari tubaab yi doon xeex Cheikhu ba lakk Muhamadiyu ci 18 juin 1869 ba ñu ca jógee ñoom ñëpp la yàlla napp benn par benn bi de la Prade mi joxe woon rey ko ci 18 août 1869 Louis Alexandre Fries, commandant supérieur du second arrondissement ñu du ci de la prade, d'un affecté Vietnam feebar dal moufad, fa 1871. Vallon commandant de frégate de Lakon Wuromane ci loxol boppam ñu summi ministre du vous gouverneur bu bees Chez réew en fin stratège xam ni frottement politique maanaam jiitu jaaxa am na ci biir tubaab yi ci la jëlee initiative boo xam ni la tax jóg mooy bennale ak dajale jullit dafa woo mbooleem kilifa diine yu Fuuta ca Oréfondé ci waxtaan ak ñoom ngir ñu monter coalition génne tubaab yi Fuuta ak réew defe naa loolu mandarga bu leer la ci taxawaayu boole ak bennale jullit yi. beneen exemple buy wane taxawaay boobu moo di bi mu jëlee Jolof Seexu dafa woo borom xam-xam yi dëkke woon ñu leen fay fitnaal ak yi nekkoon ak Maba ca Rib te ginnaaw somm ñu leen di bundu xataal ñu wuy si ko tollu ci li mu ñaar téeméer mu waxtaan ak ñoom tasaare leen biir dénk leen fonction yi gën a ci diine te mooy imaam ak xaaj foog naa loolu exemple bu daayita la ci benn julli ak organiser diine soo gi exemple maam Amady Ndaak ni mu organiser Thiénaba ginnaaw bi mu ko sosee ci 1882 doy na firnde ci benn la ak boole fu ne na fa fekk si ko ñii di sàkku si xam-xam ñii di fekk si seen mbokk ñii di xeeñtu si seen borom ñii di faju ñii di làqu si ngir mucc ci nooteelu ceddo yi ci wàll woowu moom góor gi dem na ci ba ñu gënoon a soxla ku leen yiir mu nëbbu seenu sant jox sant boppam ñu mel njabootu boppam ndax li ñuy saay-saay lépp ceddo yi yaarasoon nañ góor gi ngir faa leen di ko maam naag faal way juróom boole mu yaatal ñëpp ñu dëkk ak moom gor ay tool tarbiya leen ba ñëpp doon benn bopp di ab communauté dajale mbooloo yomb na li jafe mooy defar seen jikko ba ñu doon communauté maanaam bokk pas bokk doxalin góor gi yàlla dimbali ko ci loolu moo tax ba tey jii esprit de communauté jógewul fii ci Thiénaba te laañu taal si sa tënk ci baat yu tegtale Thiénaba du dëkk ak kër la li mu wootoo baayam maam Momar Talla wa mu doon def te misaal ko mbalaan mbalifa ba muy waxtaan ak ñoom te indi li yàlla ak yonente bi digle ci jàppoo ak jàppalante booba ma nga leen di jox leçon yu islam ba mu indiwoo balaa nun wasifa dafa dugg ak ñoom ci exemple bi entraîné mu santaane ñu tàllal ko mu téye ak koñ te loxoom yu tedd ya sant ñeneen ñu téye koñ ya des mu ni yëkkati leen mu jóg tali ñare mu tegru ko jéem a yëkkati moom dong ma des ci suuf mu ni mbooloo mi diine su ngeen ma ko bàyyee lépp sooxe su ngeen jàppalee ma jàpp lépp baax ki bëgg ñëpp jàpp tey jubluwaayam moo di kon bennale ak boole fi ñuy tënke mooy bennoo jàmmoo bokk na ci enseignement yi ñu mën a jële ci njàngalem yonente bi li tax nuróowul ak leneen dafa am li géographie di wax une dimension maanaam valable ci échelle wala tolluwaay yu bari fu interaction sociale maanaam fu doomu aadama di séq ak moroomam rek njàngale bi yonente bi sallallahu alayhi wa ci boole ak benn la moo fa gën a leneen lu moom moo xam doxalin diggante ay réew wala ci état ni ñuy saytu këru diine wala rek mbooloo

yoonu gindiko bi mu tegtale jumtukaay la pour gàttandu wala saafara conflit yal nañu yàlla may dégg ak topp njàngalam professeur bu mag boobu ni sallallahu alayhi wa sallam wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh